leen la ngir man dem nañ ci rajo yi fépp ngir man ndax toog nga ci programme ministre de la jeunesse ma ne Amadou Diarra kay jàppale Macky Sall jàpp mujjee wax Macky Sall wax na ko Marème Faye wax na ko Omar Youm wax na ko Mahmoud Saleh wax na ko euh, Farba wax na ko euh, kii nii laaj ko ñaata kilifa diine ñoo ñëw fii sama kër laajal sama jabar ñaata nit ñoo fi ñëw ku nekk wax na kaay indi leen valise kaay kër dañ lay nommer ma bañ boobu maa ngi parti démocratique sénégalais mais bi ma ko mujjee laaj daf fekk ne waa parti démocratique sénégalais dàq nañ ma depuis deux jours jiitatuma Pikine jiitatuma coordination fédération jiitatuma département fi ma bokkoon ci comité directeur yu diggi ma ñeneen lu ma dikkee ñaar dama dikkee ñaar bokkoon ci ñoom nekk député président groupe parlementaire Karim Wade candidature ma xam ne takk na lu xusuma dama xam-xam politique xam naa ne du dem du ko bàyyi bu ko yàqal ma ne ko nag kaay lañ wut keneen ci suñu biir parti ñu jàll ñu tànn keneen ma tànn ma dikki mënoon naa dem dama la ñëw ci Macky ñu ne bàyyi na PDS dem na ci Macky Sall mais ma jàppale un candidat de notre parti ko woteel mu yóbbu mais gars fexe tout ba jaxasoo Omar Sarr nekk ci dàq ma bépp législative yi daf ma tëdd liste mu dindi ko dugub ji mer ma ne muñ leen buñ demee nag ba comité de bi ñu koy defaraat dem naa ba ñoo commencé à demee ñu boole ma génne génne ma secrétariat national génne ma fédération Pikine Pikine Nord bi ma jiitee joxe toute ma vie toute ma jeunesse toute jox ko parti démocratique sénégalais ñu defaraat Pikine Nord dindi ma tey fii ma waxoon bokk ma benn parti loolu mérité wu ko man de la part du PDS. bu demee ba li ma bokkaloon Pikine yëpp kenn mësul ñëw seet sama ne ma kaay dellu si sa kër baay du waree saar du baarakay du Cheikh Dieng du Ablaye Diop du Ndiaga Niang du kenn ku dëkk Pikine dama daan dimbale ñii xaru tabaski ñii tam xarit ñii korité ñii ku feebar ñii dëj ñii location li ma am fii wutuma kër tabaxuma di jàppale ñi ci PDS yi ba ma demee ba léegi kenn woowu ma ne ma kaay ma ne mais ñii bëgguñu na naan Diarra kay kay bokk suñu nguur kay jàppale Macky Sall ñu ne mais attends Diarra na toog na torox na dee PDS ko bu bu bu dara. kon laaj sama nit ñëpp ma xamal lan la soo bëggee sa gox Macky Sall nekk ci nguur sa parti yoon nga bañ ci parti tey nekk ko ci parti amatoo lay bu dee Pikine noonu bëgguñu ko bëgg nañ ñu bàyyi la nga liggéey sa centre commercial. am deux mille cinq cent places jox ko jigéenu Pikine ñu mën a tabax liggéey tali bi mun jóge ci xar-xatu tali mag bi demal wuy ci président de la république ñu jàppale la nga def dëkk bi. seen liggéey jeunesse bi am wuy ci président mu tabaxal la stade bi ñu bàyyi la nga tabax sa stade la ak sa promoteur. amal fii bëgg boo fi bëggee su Magic Land suñu tur tànk yi dootuñu dem Dakar di wuti di suñu forêt ñu am fii Magic Land bu. normal bagage si jóge Dubaï ne la demal président mu jox la suuf yi sa promoteur tabaxal la ko nga ne non parce que bëgguma Macky Sall lan la ñuy bañ ci Macky Sall en tant que lii fi la man bu ma toogee moom su ma gisee ne lii baaxul wax ko ma lii baaxul defal lii baaxul defal lii baax na loolu mooy yoon moo tax tey alxames bi passé moom ci boppam mu woo ma nee kaay yi si ma dem pale wuyu si ko mu ne ma lii doyul dama bëgg nga ànd ak sa waa yëpp imam chef de quartier euh, jeunesse ASC yi étudiants yi commerçant yi cordonniers yi yéen ñëpp dama bëgg ñi nga àndaloon te ànduñoo ak man nga ñëw ànd ak ñoom pale ma wax ne man maa la bëgg man maa la bëgg jàppale te loolu lu ko ñuy waxee te sa parti nee nañ bëgguñu la bi nga joxe sa adduna yëpp nee nañ duñ la ñu xam la nga xam ne ñu ne boo ñëwaatee da ngay rang ku yor réew mi di joxe dogal yi nee na kaay ma bàyyi la nit dimbale la nga defar sa dëkk da ngay topp la ngay def. merci beaucoup. moo tax ma ne Omar Talla sama défi ak ñoom tax ma fexe ba ñu mooy mooy sama défi politique sama défi moral mooy lu apporter une mooy doyluñ ko ay nit par rapport bi mu amoon ngir mu jàppale ma ma ni fi ma yemoon ma weesu ko la ma mënoon def ma yokk ko li ma bëgg a dimbale ma yokk ko loolu laa ci toll la man na ma nëkk kon du ma toog fi di wéy ba léegi nekk naa fi maire nekk naa fi député na ma ko alal soxla ma ko léegi rek laa nam sañ si aussi lu rafet desin rek loolu war ko ma ñu fekk ren mais bëgg naa sama gox ma defal